Euh, ndax initiative bi lu am importance la ndaxte ñun jigéen ñi dañoo war di booloo liggéey di xàccandoo dóorandoo réseau international des femmes actives face au développement ñëw tey fekk si fi jigéen ñu jàmbaare yi fas ne lëkkaloo ak ñoom ñu jàppante liggéey incha allah rabbi ndaxte li ñuy wax rek toujours jigéen dafa bokk ci société bi jigéen mooy socle société bi rawatina société sénégalaise bu ñu demee nag tey ba suñu ay moroomu jigéen macha allah jël jug tey euh, di entreprendre yu mel ni lu demee ni que foire yi ak yeneen ak yeneen ñun dañ cee kontaan bu baax euh, ndax loolu jigéen bu jug di yëngatu ci dara dafay apporter euh, une touche ci développement dëkkam te loolu ama am solo la. déjà maa ngi rendre hommage à mon grand-père feu Alioune Sow euh, secretaire général UDTS Union démocratique des travailleurs du Sénégal nga xam ne tey euh, euh, ci feet yi la bokk moom. li ñu bëgg ñun jigéen ñi mooy ku ñu soutenir ci suñuy activité génératrice de revenu ku ñuy soutenir ci suñu développement ku ñuy soutenir ci activité yi nga xamante ne ñu ngi ciy yëngu mu parce que ñun déjà ku ci nekk femmes yoo gis ñu dajaloo. ñu ngi yor seen mbooloo ci seen ginnaaw yoo xamante ne ñoom kese mënuñu lépp. finance mooy mooy soutenir ci seen soutenir leen ci seen activité soutenir ñu suñuy activité génératrice de revenu comme ni ma la ko waxee tantôt. am importance ndax tey jii bu ñu amee suuf mën nañ ci def yu bëree bëri comme maraîchage élevage ak yeneen ak aviculture ak yëpp kon boog loolu dafay am importance.